rek kontaan dellu di sant yàlla ndax li laa doon yàgg a ñaan. Mhm. dangaa nax nit de parce que fi ñu la séentoon ak fi nga fël la. lan ngay wax sa jëkkër waaw di kontaan ci moom di ko ñaanal yàlla li mu bëgg moom moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defal et yàlla bàyyi ma ak moom mu juróol ko njaboot gu barkeel. parce que tamit nit ku baax la moom xam na man xam naa ñu sës ci man ñëpp xam nañ di kontaan ci moom bu wér. gis nañ sa papa ngi fi sa yaay ngi fi say sœur ngi fi say ñëpp ngi say mbokk fi lan nga yëg tey. waaw kontaan pour wax dëgg damaa kontaan trop trop trop trop parce que dara dàqul ci àdduna ngay ñaan dara tey jii ba yàlla defal la loolu li nga yàgg a donc loolu sant yàlla la ak mbégte contentement bu rëy laa ci àndal. Mmh. dañoo laaj sa sànq mu ne da ngaa fonk waajur loo wax rek mu ne Dieyla def naan sama papa sama yaay lan ngay wax ci loolu. waaw man amuma lu dul sama papa ak sama yaay mën naa ne tey Dieyla fu mu yegg ñoom la ñoom ñoo may ñaanal ku gis Dieyla muy dem nii rek dangay xam ne Dieyla mii gis ko nii rek mais amuma lu dul samay waajur. waaw donc lépp lu lu leen mën a bëggal rek dama ciy dox. artistes yu bëri gis nañ artistes yu bëri suñuy marié fi ñu dëkk sa duñ fa dem dañuy dem côté Almadies wala côté Ouest ñu gis na yow fii nga màggee te ku nekk nit fa màggee foofu la safee lan ngay wax ci loolu lu tax nga indi. mais fii laa am nit doo doo loo loo loo rëy rëy mënoo rëy ba gën a rëy fi nga juddoo waaw su ma juumul noonu lañ koy waxee donc man amul lu dul géejawaay Dieyla ñu gis ne nag nit ku dal nga. Euh, problème lu mu bëri bëri coow lu mu dal. Mhm. Mhm. Euh, ak dal boobu loolu dama ciy sant yàlla di ko sant samay ñaari waajur parce que Dieyla nu mu mel ba nit di ko bëgg ñoom ñoo ma ko yaree donc loolu ci ñoom la ñoom ñoo ma yaree noonu. waaw ni mhm. nga dalee ba doo ba doo ba doo tontu benn problème duñu la gis mu coow am ba Dieyla wax lu négatif euh, génn wax ak coow lu mu rëy waaw gis nga man man xamuma lu ñaaw waaw lu rafet rek laa xam parce que àdduna solo dafa war a rafet loolu la loolu la. Mhm. merci beaucoup. loo ñu mën a wax sa carrière na xam nañ ne fi mu nekk nii comme sa manager mooy sa mari te mari naturellement dañu wax mooy manager yi euh, euh, jabaram même bu fekkee nekkul manager officiel yow nag sa jëkkër mooy sa mari parce que conseil yu bëri ci moom lay jógee naka nga dundee comptabilité compatibilité. waaw dina gën a neex dina gën a yëngu incha allah waaw. fan si lu ñu mën a xaar. waaw nañu xaar du yàgg dara dinañ ñëw mayaat leen benn affaire bu doy waar mooy loolu. ci décembre <laughs> bi lay doon incha allah lu doy waar incha allahu rabbi du yàgg waa kon jeex na merci beaucoup amin yaa rabbi jërë ngeen jëf waaw di ko wax que ni ni ma ko nobee dafa ëpp ah <laughs> dama ko nob <laughs> xanaa seetlu wa leen dara samay son ni muy defee ni muy ni muy génnee nit ñi di ko bëgg ci xol xol moo koy bind xol way ko muy demee ci xol nii la mën a demee. liñ bu dox. leer na tey mu ngi nii lii mooy secret bi. confidence boo ñu mën a wax. yàgg sa diggante jëkkër kañ la commencé. waaw yàgg na. Mhm. yàlla moo ñu boole et yàgg na ñu koy dund amaana tey la yàlla dogal sëy bi waaw lu yàgg la lu dëggu la moo tax tey yàlla def na ko macha allah. Mhm. merci beaucoup